on Sunday Beach so ba lan moo waral boys yi dee dem bank baagu ah yéen si sax yéen a dee tax loolu ah booy suñu amutee xam nga xaalis doon na nangoo say ak so fo ñu xar géej bi I will never ever sacrifice my life for wealth understand loo faa de mun naa dem foofu noonu nga succeed su li xam nga ñeneen dañ dee dem waaye aim to do you. waaye man lu ma la advice ha? ah def ko last choice anybody yeah Ah. I have ten oranges. two is left out ñaata moo des. ah eight. two. eight. it's two. you have ten. two is left out. how many left eight. ko waxoon mbër bi namul sa yóbbu ca max ñu ba teere di leen ko wax ne indiwaat naan leen seen favorite show di Sunday Beach Show comme nu ma leen ko daan defee saa ne di ànd ak di dugg si bij bi waxtaan ak suñu si biir teere ñu nga xamante ne mooy diwaani Poko Loko maa ngi ko. naka nga tudd. Alassane. soo lan moo la andi woon tey si boori bi. soo asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi soo maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm soo people xam xam ma tey mais bi tey mais bi ñëpp war na ma xam tey soo man maa tudd Kimpita soo maa ngi amee concert next week. soo dama la amaloon soo ok banque. ah naka nga gisee xale yu dem bac wi ak jamono ji tey. question boobu sax laa bëggoon si parce que question boobu dafa am yoo xamante ne lu doy na waar man mi sax maa ngi génne cuunu boobu bac wi man ma tamit la maa ngi xusul dañuy rent quad bike ci around bi ci bi fii ñu ngi xam si lu bari kon xam nga tamit doo mën wax yëpp soo waxee yëpp dañuy lay jàppee dof nga foog ne moo waral xale yi di dem bàkk yi ba tey. waa Guèye soo gisee loolu soo ñun ñoo war a jàppale suñu bopp ñun africain yi ñun Africa ñu fa dee bari parce que sama woy bi sax maa ngi ko wax Gambia ñaata nit ñoo fi dee Sénégal ñaata nit yi moo fi dee Guinée Bissau ñaata nit yi moo fa dee Guinée Conakry ñaata nit yi moo dee Côte ñaata nit ñu ñun yi sax ñu ngi leen ñu jàpp foofu ñuy rëy Nigeria Libya ñu xam nga ñun ñëpp africa lañ ko am ga dañu war a dalalante suñu xel ñu xam lu ñu war a def soo ndaw yi ñu ngi leen ñaan ñu fas seen jom ñu liggéey suñu africa lépp mu ngi fii te man as gom naa ne lépp mu ngi fii te dinaa te dinañu ko fexe ñu liggéey ba ñu am ko you know soo ñu ngi liggéey fii ni compagnie route de rental soo ñu ngi def Gambie yi yëpp nekk fii ni képp ñu ku ñu dégul so ñu ngi leen def ne welcome. thank you bij noonu like you know. tey nag dama si bij bi ak suma question di wax about boys yi yu dem uh, back way hmm. so naka nga gisee youth si naaw ak dem back way bi naka la mel. yeah um, di wax xam nga rek yoon su amutee comme foog nga jël tam beneen yoon you know like lu ma bëgg rek mooy ñu créatal youth si xam nga moo opportunity pour when it comes to job ak yooyu noonu xam nga cause loolu su bëree rek youth si duñ dem waaye su loolu manqué rek foog uti yoon fu ñëw mun a njëriñu ak you know understand nga so like na gaay gën a liggéey daal gën a créatal youth si opportunity yoo xam ne dañoo a liggéey ak yooyu noonu fo loolu moo gën a important you know yeah so lan nga yaakaar moo waral gaay loolu la rek pour la rek pour make ko in su fekkee ko am fii duñ dem na gaay try ñu la ñoo defaree loolu fo naa loolu su rek loolu dafa wàññeeku tam dem bi dafa ok thank you wax bi amna solo ku xam union si xam nga si borom baati urus bi tey na dem dem te lo ñu si ñaw ñamal ñu rek ñu ma pour wéy dem No tey dañ ñu ñamal ah musoon na ne si sa xol bi yow baby léegi talatuloo ma yeah <laughs> thank you what's up what's your name my name is Amir so why are you in the beach today enjoying my time so uh, what do you love the most in the beach in the beach. You feel me? The vibes, everybody outside, Gambia, you feel me? You know? So which Gambian food do you love the most? Um, I like Benachin, Domada. Yeah, you feel me? So you eat it with spoon or with your hands? Shit, I'm African, but I gotta eat it with my hands. Yeah. That's good. You? How you doing? good. What's your name? My name is Al. So why are you in the beach today? I'm here to have some fun, enjoy Gambia, enjoy my holidays. Yeah. Which country are you from? From America. America. Yeah. So what do you love the most in the Gambia? Uh, I like the I like the vibes, the beach. It's my family here, so that's why I like out here. So, which Gambian food do you love the most? Uh, my favorite is domada. domada. Yeah. So, are you eating with spoon or with your hand? Nah, I eat it with I eat it with both. I really like using the spoon. Mm. Yeah. Some try with your hand. It tastes more. It tastes better. <laughs> Coffee. thank you. Uh, <laughs> thank you too. ngeen ya, def tuh dah? Siapa lagi? ma yow malah la xamee ne ngeen def yow noo def may may abi soo lan la andi woon si biti dama ak suma classmates day gëj a since ñu def graduation so day namante so des yi lañ jàpp bés pour ñu ñëw fii nii xam nga pour ñu am fun pour ngeen enjoy happy waaw ñu enjoy tur bi Fatou Fatou ah déggoo yow suma yaay nga man abi laa tudd loolu nee naa dégg loolu nee naa ya dégg yow nah. soo dama la xaamee de waaw dama la amuloon question soo dama am ten oranges mm-hmm. two is left out Nyata orange moo des eight try again eight <laughs> thank you welcome <laughs> so mom nag mu um eight moo des bu ñu def dara ñu dugal ci biir ñu xool naka kan la ñuy demee ak li nga xamante ne mooy suñu solution soo na nga tudd. maa ngi man Souleymane laa tudd. naka kan nga kan nekk di enjoy sa solution ah man de gal man fii du fi bu sama am i gan yoo xamante ne ñooñu fi ici ya, so waaye kan, gars ko enjoy nag ñu ngi mbir bi bu ya. so dama la amaloon quick waaw luy quick sam I have ten oranges two is left out ñaata moo des ah eight I have ten oranges two is left out how many oranges left sis yow dama bëgg yaa ma bëgg a jël liggéey bu de eight yeah Okay, thank you ok thank you. ok dama laa malaat beneen am gis nañ desi ne backway bi bëri na so lan ñu mën a wax si boy yu nga xamante ñu ne dem à backway. boy yu dem backway ah soo ko gisee di other way round di nga di nga blame gaay waaye di other way doo mën a blame gaay because soo ko seetee dëkk bi dafa de si su la ko yow sam nga ne dëkk bi dafa métti te boy itam ñu ngi bugg defal dara seen parents so obviously suñ toogee fii léegoo léegi stress bi moo leen dee mën a waral si backway bi waaye bii ñu ñaanal ku nekk ñu dem rek ñu am na ñoo xam ne ñu bari dem nañ baagu samp nañ fi loolu ak loolu man suma mag si la bokk so <laughs> du ma mën a against gars <laughs> thank you ok alright alright bam so ñu dem ñu xool ñeneen ba tey rek to remind you guys it's our Sunday beach show tey moom defar moom baax aj bam kawe na mu ca yow rek ku ñu ca ba max ñu jël let's go yéen bu leen daw loolu lay daw ay man sax ñëpp gis nga ma noonu maa gisee nii ñemewu ma caméra. waaye xam nga yéen doo leen rafetee di ba mbaajal nii <laughs> ah, man bëgg naa leen bu doon akam. naa tudd ah. man Ousmane. soo lan moo la andi woon tey si. man dama ñëw holiday rek. fan nga ah, ngi noos ah. ah? Oh, <laughs> so dama la amoon um, I have ten oranges two is left out how many oranges left. You have 10. 2 is left out. How many left? 8. Really? Yeah. Okay, um, ñoo mu jógee Italy You just ne ah dëkk bi booy si bëri you ñuy dem back way lan moo nekk dem main reason You nga fag ne moo waral gars yi di dem back way. ah dëkk bi booy yoo xam ne ñëpp xam ne dëkk bi to du dox moom waaw fi ñu ñëw léegi nii xam ne dëkk bi nekk du dox so loolu mooy reason bi daal loolu dafa métti everything is expensive so is you daal. so long. nga yaakaar ne moo stop them? bi back to ah, youth. bala nga stop kay day wara tiré lo xam la gadi ne mëna tok tamit lo do fi nekk nek lo di li nek lo def dara tamit so lo tam izo te ñi ñu fa ñu ñu fa ba ñu yéderu ñu tam dafa jina hat daal yeah lo do problème thank you ako yo be ko yow ma si madam yow yow ma madam nak? <laughs> no man man faraluma jigéen yi man ma bañ faraluma jigéen yi man ma si boy si bro nakam kan? <laughs> waaw noo def. so lan moo la andi si biir. bi eh, enjoy rek. Eh, waaw. so ah, naka nga gis booy yi di dem baag bi ak lan nga foog ne moo nekk di réserve. dan baag bi réserve dan baag bi ah dem baag bi dem si baag bi waaw dem baag bi càng rek. waaw ku a Ndiaye dégg sa ngi xalaat ñu dem si keneen bro a maa ngi fi de nagam. noo tëdd. waaw Abdoulaye la tudd. soo lan moo la andi woon tey si bi. waaw bii ñëw seetaan rek xool gars yi ni waaw naka la waaw yi bëri na boy suy dem baak bi lan nga foog ne moo waral. ah boy xam nga rek rek xam naa rek baak bi mooy loolu quoi dañoo yaakaar amul dara moo mu xaalis loolu moo tax yee. waaw loolu laa. ñàkk xaalis yaakaar nag waaw yee waaw. loolu de métti na waaw métti na boobu kay. Mbaadu. sista yi man de nees rek moo tax ma lay cool après man nga kaw nga a itee ñi ñaatale de. amaraka. pakeno. <laughs> ngaa ko di kala jëla de. e itoo du. ale wa. mu bijo bi. Nada fons la rek. ka fons naata fons. Nada, nada pour ka fons daroon soro. Ah. so na question acha. okay I have ten oranges. two is left out how many oranges left. Eight. Really? How about you? Yes, of course. The same answer. Eight. Eight. Yes. Man xale den jàng ba yéen ban school nga jógee? Alpha kan. Yow? Alpha kan. Yéen yéen eh yéen yéen yéen sen seen teacher yaaxun ko xaalis sa. Ah. Okay. Okay. Okay. kay. <laughs> Den ba ne ara ca Tuuba la. <laughs> ca Tuuba la. Maa ngi baasu la. Maa ngi baasu So lan moo ni woon Ah man ma am phone rek.

maa ngi jàngee Kanifing East. ma ne Kanifing East yaa de. ah, ah waaw loolu la baat maal la. tey moom ay tuur rek. noo tudd. Malick Malick laa tudd. lan moo la andi tey. waaw ah, dama jékki-jékki ma ñëw. ma bala ñuy dem si sa rap bi dama la amaloon yaa baax I have ten oranges. Two is left out. How many oranges left? You have? 10 oranges. Two is left out. How many oranges left out? Two. And more or two? Because two more gonna, two more gonna out. <laughs> You're my fam. Bad man in the mess. So many traffic. When I'm going to be more man better, yeah. Be more man better, yeah. Model, in a new kasunkan, Ibuga lafi model, you could make them. Long time, more made that right gun, Puruka make a mole pet gun. Bad mind don't wanna see you on top. They only wanna see people who go down. More success, What I get all born. That's why then, that's why she go up. That's why then, that's why she go. Bad man, you gotta there go to say. <laughs> Munema moista skinny boy fly. Boy will love a chair. Rona. My was. Tell me. So lan mo la andi Ah, man take happiness mo andi Happiness. Happiness. Yeah. Rona mo la mo mm-hmm. I have 10 oranges. two is left out. How many oranges left? Bo bo bo eight la. Yeah. Eh. Ban school Man plazas. Oh, plazas yaxul xaalis ah. Hmm. Dañ la dugal you know. Yeah man. You know the vibe. Yeah. Yeah yeah. Nga nga doon rap. dema mag nii son dema agasit bi son du hey bu ma jaay dof son bu ma jaay dof yee maa la ëpp siir hey gën a dof maa gën a baat son adis bu ma jëngu fii naa ko dama hey naa hey ma la ko ma la fay wa boy adi boy penta ndele eh man sister am nga adi boy jino penta eh man a ah, tay mi boy bi leg la amé bi leg la amé fi eh nga bro e man yang alhamdulillah, you know, another happiness like, you know, come on my free, you know. Yeah. Imagine if I you know, you know, for it to murab. Happy there, you know. Monkey rap for the way, over happy there. Be happy, you know. So next question, Soto. Question, over there. I have 10 oranges. Two is left out. How many oranges left? You have 10. Yeah, 10. Mm there are two, oh? Yes. Eh, eight. So, uh, how many oranges left? I don't understand. You say you have 10 oranges. You remove there two or three. Yeah, so how many oranges did I remove? Eight. Uh, you remove two. Eh, two. It's not true? I didn't know. I'm just asking. Ah, okay. Uh, uh, reply, you know. <laughs> yo, yo, yo, yo, yo. So, sister, you edit on. Aja, let's go on. Okay. Edit on. So, me, ah. not to Mac, to Mac. Mac. Yeah. So, ah, okay. the reason, I'm not in a mall with a back way. Chap. biso eh bangole bataye no ngalifu question si ba fule nyini ka wala tangori no bangole bataye no mon over bata eh, no eh gambe je no ibida do job la no ni ko office do ko di no wa tangori ba fe ba sabe so way way ni na fe ni ko ba fe woni do la sorry sorry sorry Dale, but but I like what I'm talking about, you know. Yeah, go. Yeah ovala batata ino joman soro iga karanya foye stupid ina ra iga good film soro le sabi kero soro ino wai ni dal film gola to lu ni da job ni ibo job soro so you so but dofri ni ino fonsa fonsa bago e busa joni busa ino anu next minute ni da ni ko film ni ko soro ida visa apply no ke bi ke bi yer boy ida mo cool sister ida ida o nyaade o ko ren ka busa bago ino ni film ni mo soro hayo mo soro ino so fonsa cooks out from from from the you know. Okay, so. thank you. Nga noo def. maa lan moo la andi woon tey si bi. fii moom dañ ñëw fii pour enjoyment rek. yaa. so lan moo la gën a neex tey si ambiance bi xam nga am nit ñi ñu enjoy seen bopp loolu moo loolu rek ñu ngi yaa. so lan nga gisee ah, ndaw yi dem baak jamono ji. na baago mo foog nyo din because gamme fi moom bore am because ni bëri ni ngi fi fii amuñ liggéey fi so soo job maybe sa salary bi karam is seven thousand ten thousand loolu xam nga loolu because so so ami ten thousand in months da nga jis si kër gi da nga am fa nit ñaari nit ñu laa laaj every every day so man man suma bo ni twenty twenty five thousand sax taxul ma twenty five thousand su ma ko amee i month non loolu toog bi soo léegi yow soo amoon chance pour dem Banjul na nga dem man maa ngi pare sax lu waroon nga pare man ne bi balaa weer koor sax fekk naa dëkk bi xaay mo Gambie bi fii mënuñoo toog fii because Gambie nu mel nii su nekkoon loolu la moo continuer non non non yu di yu bëri duñ mën a survive wallaay thank you thank you muni mutu muto ha english muru ko mi wala ni si sole la ya wala sane wo fon ko yi no mel ka sole balo kan bo ko ya muru muru mi ka ranya mu balo kan ding mi ka ranya o tumbo do ni marol how do they call it in english mari ndé man long muni mutu muto sari mo long boy ndé english ni french drong english ni french ka ka venya ni ndé mutu muto ma long mutu muto ah wele fɛ k'e ɲininka o la a fɔ kalo ala ala wala ko fɛnɛ mɔlu bi da ale bi da o ba bagu yɛrɛ lɔfɔ sɔnko ye baara ye bɔn ya wɛrɛ san dɛ bɔn i k'i ji i ɲɛna kɛri kɛndu ya wɛrɛ i t'a dugu ɲinɛ lɛ i bɛ ka fɛn sɔrɔ n tɛ ka bagu a ma min ka bi na da I'm telling you bɔn. n'a ah, e ti barfende jam boy yeah nara jam boy nara nara ma fesoro so easy ni suma banda bolo mugla la man da fenge ga be siri na boy mo da mbul fende mbul boy na boy men dunda boy sande wala ah man da fenda boy man da dogula boy ah gambe jamu tem da shala la boy ya na sa development ba gi dama dem algeria eh wala télé loolu yam so ah, bi ni may pendin eh, am nga so adama mo dana ñu wala jàppale am nga ñu wara jàppale jul si am nga jul si dama amoon chance pour delu ba koy de ama delu wa de temps ba sédda bi jël ak yeah so nga bi di boy tuuti mu ngi dof loolu moo tax ñu ngi dajale da ngeen a dégg at bi boy tugi sister have I take What's your name? I'm Junior. So why are you in Ibe today? I want to ask you a question. Sorry, I'm, I'm not a Gambian. I also want to ask you a question. That's why I am okay, here. first. Why are I you in Ibe? Okay. Okay, what starts with T, end with T, and have T in it? Why do you ask me question? I'm here to ask question. it's given. Actually, actually, I am higher look. So, you know, this kind of look need to go home with something captured from somewhere. So, what start with T, end with T, have T in it? Before you ask me question, I want ask action first. <laughs> you have already accept my my my proposal. No, I didn't accept. You accept. No. You accept. I didn't accept. Okay, then step down. Draw na No, bye. Like, tomorrow we are a Maa ngi ñëw fii foye. Ma si suma doom. Bis bi neex na. Loolu laa bëgg laa gis bi. Eh, man ak suma xarit yi kontaan ak bu baax baax. thank you very much nga gisee boy di dem back way ak dëkk eh man déguma la waxaloo le ma xam loo man déguma olof bu bari <laughs> jërëjëf ok jërëjëf thank you naa def nga kule na noo tudda suma tur Musa la so lan moo la andi tey tey waaw tey man nga man man nga xam big happy rek eh lan moo tax nga uh, Sunday Sunday is very nice in life xam nga so tey xam nga yow am naa sax. so dama am question. déedéet déedéet. wala amal question. non non non yaa ngi ba yaa ngi ba. mu ne ma déedéet déedéet déedéet. naa nga tudd. Seyni laa tudd. so lan moo la andi tey. dama ñëw fii rek pour sax rek dañu waxtaan. so dama la amaloon. Hmm. dama am ten oranges. Two is left out. How many oranges left? Ten oranges. Two is left out. It's left eight. Yes. Are you sure? Yes. Ban school nga jóge? Bundu school. Yéen seen teacher yi say mun <laughs> Thank you. Bro naka? Bro. Waaw maam. Noo tudd? Aliou. Lan moo la andi test? Sango. Dama la amaloon question. Hmm? Ma question. foog ne moo waral booy di dem baak we léegi. waaw dëkk bu métti moo gën a métti si dëkk hmm. ah, di jaay client yi <laughs> xaalis amul waaw. yow soo amoon chance mu dem baak we ndax di nga dem. déedéet du ma dem de kanam avion. doo dem baak. ñëw ma ko <laughs> waaw man tudd Amadou la. lan moo la année ñoo free mind nii rek xam nga. naka nga nekk di enjoy na si. nice no gooba love sax. gis nañ ne desi booy yaa ngi demee baax. lan moo nekk de reason lu tax gaa yi di dem baax. ah dëkk bi nu mu mel nag tamit am na booy yaa ngi tukki. ku nekk naka la dëkk bi mel. ku nekk ni nga jàppale famille xam nga soo bëggee toog fii rek ko mun a am fii soo foog nga génn rek dem def sa waar la ñëwaat. soo yow soo amoon tey chance pour dem baax bi nag di nga def. damaa dem. dangaa dem. waaye ko nu bàyyi. Ah? waaye tura Ibrahima no. lan moo la andi woon. waaw dama ñëw ci la suma liggéey no YCP no represent ni no xam nga waaye ni bi am live bi yëpp si mbaay no. yow tam lan nga foog ne moo waral booy di dem ba. waaw dëgg ba xaat booy booy amul liggéey amul dara maa no ñuy toog ñuy sonn ñu xalante rek so moo tax booy yi dee si am nga dem si baay boobu di am nga du di am nga waaw pour dugal ñu def seen def nag no. waaw soo amoon chance pour dem da di nga dem waaw amee ci ay léegi léegi ma dem dama tey tey sama réew du ma waaw mooy dil bi la so lan nga mën a wax si ñu nga xamante ñu nekk si liggéey yu bëri booy amul waaw booy am liggéey mooy dil bi la yeah mooy vibe si yeah thank you so much ah. maa ngi tudd Abdou Abdou so lan moo la andi woon tey waaw ma ñëw am fon ak suma boy ya yeah so lan nga ñu mëna wax ci boy seen demi back way waaw back way bi ah dëgg ba mété rek moo tax boy dama xam nga ñuy bëgg a tukki am ya, jaxbale seen famille bi ya, ak mère yi ba yi mété stress bi am ya, so amoon chance pour dem te back way ndax nga dem kan man so amoon chance no no man ma lay pour dem back way yeah okay thank you you're welcome maa ngi fay lan moo la andi woon kon dama ñëw ci la fii sax si man. lan nga nekk di enjoy si. mu ngi saa ñu ngi la nees. soo nga foog mu nekk di méngu booy di dem ba. bi mu métti bi duñ dem waaw. te soo amoon chance di nga def. Uh, just have fun with friends, close friends, family, spiritual men, and uh, but it is very difficult. So they can be in the habit. Yeah, in the habit, so they go back. Yeah. Ah, change of economy la rek. dëkk bi amul économie loolu tam ngay nit amul économie kañ. non I guess you should sacrifice something behind some dara si biti su amoon fii jaama bi jaama bi moom moom fii kañ fii comme su amoon xaalis ne enjoyment baa fii kenn du dem fële fële dañoo dem yurundu foofu noonu rek benn one month two months ñu ñëpp si ndax yow tey amoon chance pour dem baako yi ndax di dem man I will never ever sacrifice my life for wealth understand loo faa de ut mun dem foofu noonu nga ñaaka succeed su lee na nga ñeneen dem waaye aim du dee yóbbu waaye lu ma la advice ba wi ah def ko last choice anybody ya xam ba baagu dara comme yaa ngi dem nga tëj mile to ten years amuloo dara amuloo family gisuloo kenn amuloo ben option is the last sacrifice in life. soo amoon word government nga doon wax gay. government ah sant yàlla rek jaama baa fi kañ yee jàppale nañ ñu kañ yee jàppale nañ ñu ngi liggéey yes Adama Barrow is working yéen development moo ñëw dañoo understand alen toog ñu may ko rek three years four years I swear suñ yi wala ñun liggéey bi time bi suñ kaw la nekk waaye suñ doom yi ko njëriñoo wala tali yow yaa ngi moto ku nekk mi bugg a moto yëpp ñu ngi bugg yam nga moto daf dee fil loo tuuti yeah soo amul sa sa xaalis waaye nga am sa benn tali yaa ngi baax waaye thank you so much. ya Biji, ah, wono fi hal asmara kay. Yeah. So lan nga ñu mëna wax ci boy ak dem back Ah, back mo daw na yaram de eh, waye ku nekk tamé ñu nekk sa xol mo ah, la dee yewu foofa nga. Yeah, ken forcé wu kenn dem back way. Mooy loolu. So, yow say suñu joxon chance ko nga dem back way ndax di nga dem? Non, man ma dem back way. Parce que ma ligue maa semua sutra. Wow, santai sant buba. yeah. ban word nga mën wasi government to take action towards this gap bago. ah daa foog but last time one nabi benn news guy yi ñuy woon di waxtaane loolu dañuy jënd gaal yi nga xam ne boy, mën a teree yeah. Okay, thank you You're ah, welcome Hello Zizi, so why are you in the bed today mm, just to have fun meditate, watch. <laughs> That's all. I have one question. Huh? I have question. Yeah. Okay, I have 10 oranges. Two is left out. How many oranges left? You have 10 oranges. Two left out. How many oranges left out? It's two that you left out. And how, how many oranges left out? It's two. Thank you. Yeah. Thank Okay, I want you to uh, talk us more about this backway issues. What do you think that caused this backway? Hmm. Like I was just saying it now to my children that the way I even see the beach, I even fear for people that go through backway. But um, I'm a foreigner in this country. I believe Gambians um, governments need to do something. What they need to do is increase their salary rate. Because for me, I'm self-employed. It don't affect self-employed people. But the people they affect is the people that work. Because you can't allow foreigner to come and pay your, your people a lesser amount. And foreigner living good, living well, whereas the citizen are not benefit anything. And look at the rentage now. How many for, uh, citizen is working? Some people work 3,000. Some people work 5,000. And rent is 5,000 per month. And some of these guys, some of these ladies, they have family. They need more than they, they are handing. If you pay your rent from um, 5,000, you have to, maybe you have kids, you have wife, you have mother. What can you give to them? So that's why everybody is running out for greener pasture. So I believe the situation in this back way is the government. They need to assist. They need to stand up for their people to have good salary. You cannot allow foreigners to come and pay your people uh, um, um, um, 5,000 and you are collecting like foreigner, you are collecting tax from them. Where you expect them to get that money for that tax when the salary is not good? If you want to see this country as a, um, um, how you call it, tourist, you have to make it good for your people, not for the visitors. The people are not benefit. Visitor come, they are enjoying. It's very wrong. You know, it's very wrong. So they have to increase salary rates, I believe. Thank you. Yeah, you're welcome. Suleiman. So why are you in the today? I just want to live life. Yeah. So I have question for you. Which question? Okay, I have 10 oranges. Two is left out. How many oranges left out? You have how much? 10 oranges. Two is left out. How many oranges left out? Eight. Eight. Really? Yeah. Are you sure? Okay, so I want to ask you this question. Why many of the boys are going to Bakwe in this area? Ah, I don't know because I'm a foreigner. I don't know most of this, the experience of this back. I don't know. Okay, thank you. Right. Okay, no problem. <laughs> there you go. Ah. <laughs> Ah. man yaa smell nii rek. wala bij baa la. ah bij baa nekk dëgg. naka nga enjoy. ah sonde bi moom maa ngi koy enjoy. maa ngi si sant yàlla bu baax a baax. sonde bi moom neex na amoon na beneen soo nekk soo nee na moo koy gën a daal ah gis na jamono juñ toll nii nag ah baag bi bu bëri na te ñu ci bëree ngi dee si ndox bi lan nga ne moo waral demil baag bi ah pour moo tax baag bi pour gars yi génnee seen yaay si lu nekk tamit la nga gars yaaga soona tamit foog gars dimbale gars ah, kon nañ leen ñaanal yàlla rek gars yi jaama ñu dee yàlla xaral leen àjjana ju gën a kawe waaw ah. ayo tey so amun chance mu dem back way di ka ah mun na am parce que moom moom maa ngi liggéey mun am du ma la wax naa dem nag waaw waaw mun na am parce que man tam dama bëgg a suma yaay fu anga ah, suma famille yëpp loolu okay I have ten oranges two is left out how many oranges left <laughs> no sorry <laughs> eh, eh so andi friends so okay I have ten oranges two is left out how many oranges left eight really yeah You want school nga you? Yaldin Yaldin basic cycle school clap clap clap so <laughs> yaa yaa xaalis asalaamaaleykum di leen di delloo si di leen di nuyuwaat Gambian Challenge TV it's your favorite show in Sunday Beach Show comme ni ma leen ko doon waxee saa su ne ba tey rek ngeen gis na ñu ngi nga xamante ne mooy diwaan yi poppalu ko ba tey rek leen wax ne tey nag den génn ñëw waxtaan ak askan bi si wàllum a ah, li nga xamante ne moo nekk back way bi di nga gis nañu bëri waxtaan nen wax a ah, naka la naka la demee ak lan moo waral ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi ñu ngi dem back way ak lan moo waral raison lu tax gars yi dem back way ñu bëri nag blame neen à government bi ñu bëri tamit wax neen ne ndaw yi léegi dëkk bi amul liggéey ah loolu moo waral ñu dem back way ñeneen nag ñu ne ñoom nag seen coobere la moo tax ñuy dem back way am na ñu wax ne tamit ñooñu tamit dee fi sax moo ñu ko gënal waaye ah duñ dem fi nga xamante ne mooy à ah, back way waaw ba tey rek après gu ma suma ñaare bi moo nekkam I have ten oranges two is left out how many oranges soo gisee di nga gis ne question bi is really confusing nga yaakaar ne man dama la laajte am man dama amee ah, ten oranges and two is left out so how many oranges left laajuma la lan moo fa def but lan moo génn si oranges how many oranges left out ñu bëri di ma wax eight those are saying two but the correct answer is two oranges left out maanaam ñaari oranges ñoo génn so that was our question for today ba beneen sonde jaa ngeen jëf ngeen ànd ki nga xamante ne mooy Fatou Diouf ak suma caméra li di ñaaw ji di Fatou Suso ak anti Adam Jang <laughs>